aussi, je lui vous respecte, donc euh, je lui dirai jamais de mal, parce que c'est un ami d'un ami. Je lui respecte. Il est libre de dire ses pensées, mais déglu ma lu mais boof c'est pas une personne boo xam ni war naa wax ak moom donc euh, sama xaritu xarit la quoi. dinaa course mais ñeneen ñi ci des ñëpp nag. nañu xaar ah, vraiment gars yi yéen ñi ne ci live bi wax leen mënu gars yi wax rek kan ak kan la ma xool ko kan ak kan la dama bëgg tontu de man nag xam nga man defantekat laa ay bal laay wax waaw coow li bari ah, wax dëgg yàlla de bu ma xamee lu waay wax rek téemaa sama doom ji mu tontu leen sëñ Babacar ndax ñooñu ay bébé lañ dafa am ñu doon wax ci TikTok bi lu ñu doon wax est-ce que du ma la bàyyi ak ñoom nga tontu leen saa kay mën naa tontu booy booy bi kay non non xale du leen tontu Babacar mi nga xam ne 10 ans la am xale bu ndaw bi laa leen booleel. Babacar su ma xamoon lu mu wax sëñ Babacar laay baa mu tontu leen rek. lu waxati. lu ñu de xam naa ni moom. Eh, sonnal nañ Abdou Aziz Ndiaye boo mayee sa doom ñu wax. boo gàmmoo ñu wax. boo dawalee oto ñu wax. boo tukkee ñu wax boo takkee jabar ñu wax. maa ngi lay giñal ci yonent bi de bu ñu xamoon ki ñuy waxal dinañ noppalu de. maa ngi li italien di wax dara fregew ma dara dara dara dara dara fregew ma. dara ñeente léegi nag. dama bëggoon dégg naa Californie mi ngi live dem leen ci live Californie xool ñaata abo ñaata nit ñoo koy seetaan ak man suma live bi nga xam ni amagul sax cinq minutes. bu ñu xamoon ni dara feregewu ma de dinañ noppalu. wax dëgg yàlla man ni Abdou Aziz Ndiaye Al Amine vraiment sëñ Babacar lu wax xale bu ndaw bi da laa bëgg mu tontu leen xam nga loolu jarul lay daw Babacar tey tontu ñuy wax ak sa baay ba xam lu ñu wax barki alxuraan bu ñu xamoon sa baay dinañ ko bàyyi bu ñu ma xamoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg way fiis ah Abdou Aziz Mbaye min nuur yi ah, ne ko mu yëg ci kaw waaw moo kan ànd ah kon gars yi xaar leen bu Abdou Aziz Mbaye ñëwee mu woyal leen min nuur ah? na yëg na yëg ci kaw macha allah ah, tey moom dama yendoo nelaw sëñ Babacar waxal ma dégg. doo wax li naan lan. kër gi xawaare moo ñu ni xawaare moo amoon fii sa kër papa ji allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima axliqa walxaatimi lima sabqa naasiri alxaq bilxaqi walhaadi ila siraatika Oustaz Modou Fall lu mu leen tontu moom lu mu wax eh, ah kër gi xawaare ah. xew foofu diine gën a xew foofu waaw ah. lu gën a rëy diine gën a waxtaan muy Bercy 2024 mu ni Bercy ku wax loolu Modou Fall ni leen lan après. leen bu dee ay waay ndaw Samba. je pense que Abdou Aziz Mbaye dafay ñëw. je vais arrêter live bi tuuti après dama leen di jox nag euh, rendez-vous ngeen abonné tuuti dama am ay gan dinaa leen tegal ñu wayal leen wayu Seydi El Hadji Malick bu mu paree nag. moi j'ai des choses à dire ah mais damay xaar ngeen abonné nag yéen ñëpp dem leen abonné ci sama compte yàlla xam na ci kanam je vais dire des choses pour que euh, certaines personnes xam seen place maa ngi ñëw tuuti je vous dis ah à dire et je vais dire euh, man gaynde gi moom maa ngi ñëw bu ngeen xamoon ne man gaynde sii bi la le fait de parler moom daf leen di sonal rek tout à je vous reviens aussi vous donc euh, je lui dirai jamais de mal parce que c'est un ami d'un ami. Je lui respecte. Il est libre de dire ses pensées mais déglu ma lu mu wax mais boof c'est pas une personne boo xam ni war naa wax ak moom donc euh, sama xaritu xarit la quoi. bañu bus. course mais ñeneen ñi ci des ñëpp nag. nañu xaar seen ah xam nga vraiment waaw. gars yi yéen ñi ne ci live bi wax leen mënu gars yi wax rek kan ak kan la ma xool ko kan ak kan la dama bëgg tontu de man nag xam nga man defantekat laa ay bal laay wax caaw caaw li bari ah, wax dëgg yàlla de bu ma xamee lu waaye wax rek téemaa woo sama doom ji mu tontu leen sëñ Babacar ndax ñooñu ay bébé lañ dafa am ñu doon wax ci TikTok lu ñu doon wax oh, est-ce que du ma la bàyyi ak ñoom nga tontu leen saa ngay mën a tontu booy booy bi nga non non xale du leen tontu Babacar mi xam ne 10 ans la am xale bu ndaw bi laa leen booleel. Babacar su ma xamoon lu mu wax sëñ Babacar laay bàyyi mu tontu leen rek. lu wax. lu ñu waxati. lu de xam naa ni moom. Eh, sonnal nañ Abdou Aziz Ndiaye boo mayee sa doom ñu wax. boo gàmmoo ñu wax. boo dawalee oto ñu wax. boo tukkee ñu wax boo takkee jabar ñu wax. maa ngi lay giñal ci yonent bi bu ñu xamoon ki ñuy waxal dinañ noppalu de. maa li italien di wax dara fregew ma woon dara dara dara dara ma. dara ñeente léegi nag. dama bëggoon dégg naa Kaliphone mi ngi live dem leen ci live Kaliphone xool ñaata abo ñaata nit ñoo koy seetaan ak man suma live bi nga xam ni amagul sax cinq minutes. bu ñu xamoon ni dara feregewu ma de dinañ noppalu. wax dëgg yàlla man mii Abdou Aziz Ndiaye Al Amine vraiment sëñ Babacar lu ñu wax xale bu ndaw bi da laa bëgg mu tontu leen xam nga loolu jarul lay daw Babacar tey ngaa tontu ñuy wax ak sa baay ba xam lu ñu wax barki alxuraan bu ñu xamoon sa baay dinañ ko bàyyi bu ñu ma xamoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg way fiis ah kan la Abdou Aziz Mbaye min nuur yi ne ko mu yëg ci kaw waaw moo kan ànd ah, kon gars yi xaar leen bu Abdou Aziz Mbaye ñëwee mu woyal leen min nuur na yëg na yëg ci kaw macha allah euh, tey moom dama yendoo nelaw sëñ Babacar waxal ma dégg. doo wax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 ni leen lan après. ay waay ndaw Samba. je pense que Abdou Aziz Mbaye dafay ñëw. je vais arrêter live bi tuuti après dama leen di jox nag euh, rendez-vous ngeen abonné tuuti dama am ay gan dinaa leen tegal ñu wayal leen wayu Seydil Hadji Malick bu mu paree nag. moi j'ai des choses à dire ah mais damay xaar ngeen abonné nag yéen ñëpp dem leen abonné ci sama compte yàlla xam na ne ci kanam je vais dire des choses pour que euh, certaines personnes xam seen place maa ngi ñëw tuuti je vous dis ah et j'ai des choses à dire et je vais le dire waaw euh, man gaynde gi moom maa ngi ñëw bu ngeen xamoon ni man gaynde si bi la le fait de parler moom daf leen di sonal rek tout à l'heure je vous